c'est le sommet qui marque l'acte euh, du comité. Pouvez-vous revenir mais écoute, l'ambiance elle est Bon, nous sommes aujourd'hui à partir euh, du premier lancement qui a été fait par le président de la République et par le maire Dakar et par le ministère de l'Environnement. Nous sommes à notre cinquième euh, organisation parce que nous avons commencé d'abord par l'hôtel de ville que nous avons nettoyé. Après, nous avons pris euh, l'avenue Bourguiba, le marché Ngalo, le marché Babas. Aujourd'hui, nous sommes sur l'avenue Seigne Fallou. Et veut tout dire. Et en lançant les sommations, c'est le conseil municipal qui s'est déplacé, qui a eu à faire euh, euh, les, les, les, boutiques pas à pas. On a parlé à tout le monde. Et aujourd'hui, on est aujourd'hui sur l'action. On essaie de désencombrer, d'enlever le sable et de remettre tout euh, à l'état. Bon, c'est un peu difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours continuer. Euh, il ne faut pas s'arrêter. Et il ne faut pas le faire tous les premiers jours, tous les premiers Je pense qu'il faut le faire chaque semaine, chaque jour, essayer d'inculquer aux populations cette manière de faire, cette manière de, de balayer, cette manière de s'occuper de soi-même. Et je crois que c'est ce qui est important. Et nous, dirigeants que nous sommes, euh, nous, devons montrer, nous, nous, nous devons montrer le, le, euh, le, bon exemple. Et je pense que les populations vous On ne doit pas se lasser. C'est une course de fond, ce pas une course de vitesse. Et je pense que si on continue ça dans di sant ñëpp di gërëm surtout le président de la république le ministre bi nga xam ne moom moo yore li ñuy def di cadre bi maire de Dakar bi nga xam ne ñoom ñoo ëmb affaire bi doon ko def commencé ko nag ci euh, at mële passé ci premier samedi bi nga xam ne moo jiitu ci at mële passé ci mois de janvier affaire bi nag dañ ko def samedi bu nekk bu jiitu waaye def naa ne loolu dañ ko war a gën def samedi bu nekk bu ñu mënee sax bés bu nekk lii nag lu ñuy door la ñun dirigeants yi ñoo ko war a parce que population Sénégal buñ la ngay def dañ lay seetaan waaye bu ñu xamee ne ñoom li ngay def dëgg ci yow te ñoom xam nañu li ngay def lu baax la day lekk si fekk si donc affaire bi waruñu tokki ni ko ni ko sportif di waxee course de fond la du yàkkamti te Sénégal bu la gisee ngay def boo xam ne li ngay def dëgg la ci yow dina ñëw kon nag nañ ko jàpp fii ak euh, juróom-benn weer nit ñi dinañ ko jëlal seen bopp en charge te loolu moo am importance parce que bu ko nit ñi ñëwee nag jël ko en nag ñu leen di commencé nag di wax ak nii la ak nii la leen accompagner donc defe naa ne loolu moo ci am mooy organisation mm-hmm. bi ñu njëkk a mooy dañuy def suñu biir mairie suñu biir hôtel de ville dafa xawoon tilim nag mm-hmm. te diggee sa càngaay da set ba pare foofu loolu lañ njëkk a def bi ñu paree nag ñu dugg ci Bourguiba bi après def euh, marché ngelaw def marché Babas xel mënu ko woon xalaat. Mhm. ñun ñi nga xam ne du dëkk lañu fi depuis plus de cinquante cinq ans euh, xamuñu woon loolu foofu noonu la mel mais foofu aussi li ci am importance mooy ni suivi bi. Mhm. loolu nag ministre bi ak maire Dakar la ñuy waxtaan na ci ak ñoom pour ñu jàppale ñu ñun ñu jéem a def suivi bi loolu moo ci am importance parce que la fa nekkoon ñu koy lekk di koy naan loolu wootul continuer ndax nag suñu wërgu yaram la jëm te nag euh, feebar ñu faju loolu euh, amul njariñ bañ a feebar moo am njariñ te microbe yi nga xam ne moom la ñuy jël ci feebar yu bari si jëf yi yëpp loolu rek la tey nag moom ñu ngi def avenue Serigne Fallou te avenue Serigne Fallou nag avenue bu màgg a la ñu koy wax Bentali mm-hmm. fii nag dafa xaw a désorganisé moo gën désorganisé a tane waaye bu ñu demee boo ci kaw ci xam ne la fa nekk baaxul waxtaan nañ ay nit ñi nag jox nañ leen sommation wax nañ ne ñoom nekk lii baaxul trottoir bi nit ñoo ko moom tali bi oto yi ñoo ko moom loolu dañuy jéem a jël ko en charge ñoom bëtë bu ñu yeewoo saa ñu yeewoo ñu def ko te kenn du leen ko wax loolu nag du loo xam ne nag lu ñuy lu ñuy door léegi la mu sotti léegi la il faut ñu ñu bañ a yàkkamti bañ a teel a xoox teel dañu teel a sonn pour que affaire yi war a mën a antu donc mun nañu wax ne léegi pour affaire bi course de fond la nañu nañ ci jëm rek te bañ a découragé